mais aujourd'hui en une seule ben taw rek mu yegg si fii loolu moom lu yéme la motax ñu ñëw di len massaw ñu waxtaan ak pour ñu seet aussi yan disposition la wara mëna jël pour que non seulement euh, sinistre bi nan lañ koy def ba jappalé len ci mais aussi tamit li ñu ñu def ba dootul amaat. vrai sinistre la en un temps aussi court ñu am dégâts yu yu ni toll mësuñ ko fi gis mom motax ñu ñëw pour massaw suñu frère.

ñu jàppale sinistre, yi deux aussi tam ñu def ba lii dootul amati parce que euh, assainissement dafa nekk lu am importance ci dëkk lii vraiment moo tax ñun ñu ñëw et di masawu bu baax encore sunu euh, suñu frère ak sunu ay sœurs yi nga xam ne ñoo nekk euh, au niveau de la chambre de commerce. docteur ñoo ngi content trop ci sa présence fii ñëw vraiment di ñu masawu ci li nga xam ne nii moo ñu dal mu nekk nag loo xam ne lu metti la lu metti lool pour région de Thiès parce que chambre de commerce dafa nekk loo xam ne nii bien wu population région de Thiès la ñu ñëw ñoom ñëpp euh, ñëw ci chambre bi chambre bi di leen jàppale donc su lu mel nii ñëwee dal ci seen kaw te dara waralu ko lu dul négligence ak ñàkk concertation yenn autorité yi nga xam ne nii dañuy ñëw def lu leen neex parce que am nañu nu mu tuddati loolu aussi fokk état wax ci parce que mënuñu d'accord ñu jub hivernage te caniveau bi nga xam ne presque ndoxu Thiès bi yëpp foofu lay jaar kenn du ko c'est pas possible mënuñu aussi comprendre mairie zone nord ñëw fi ndox bi war a jaar mu mu def fa benn mur boo xam ne mur de clôture boo xam ne nii soi-disant dafay def parking bloqué ndox mi nga xam ne nii foofu la ndox mi war jaar pour dem donc yooyu yëpp dara waralu ko lu dul concertation ak ñëw wax ak nit ñi ni kat li la bëgg def fi def étude d'impact étude sociologique xam ba xam fi lan mo fi doon jaar ak lan mo fi xewon bu boobaa dinañ la mëna wax ni la fi kat boko fi défé nangam ak nangam donc voilà les résultats c'est des millions des dizaines de millions lañ ñu yakal yàqal ko wa FONGIP waaw documentation yi gis nga ko waaw chambre de commerce mi ngi am ben salle de documentation bo xamni ni archive yi mu am sur le plan national sax euh, international sax nit ñi dañuy ñëw diko ko donc ngeen gis chambre bi ni mu melone ces derniers temps nekk euh, joyeux ville de Thiès gis ngeen ni mu mel donc li c'est des choses yo xamni ni à éviter et ñoo ngi wo gouvernement bi aussi ñu jàppale ñu jàppale ñu pour que ñu mëna a li jàppale ñu aussi pour mun a wax ak les autorités locales la pour que ñoom tamit ñu xool nan la ñuy mun a defee pour que yu mel ni ñu di ko gérer pour que lu mel nii bañ a amati.